donc bon xalaat bi ma ci am mooy comme li mu ci ama parce que xam nga aussi Sénégal fi mu toll je pense que ne ñun ñëpp la soxal parce que ñun ñun ñëpp ay acteurs lañ ci ci société bi ba nga xamante ne nii tey jii lu mën Sénégal. Mm. bu dul jàmm rek ça parce que ay ay ay wayjur lañ dañu am njaboot ba pare dañu am ay jur aussi ñu nekk fu nekk ci Sénégal lu ci mën a am rek nañu xool fi nga xamante ne nii jàmm fa la ne ñu doxal jàmm boobu. te je pense que ne nag jàmm ku koy woote ci réew. Mm. mooy ki nga xamante ne nii moom la ñëpp jox réew mi muy la président Macky Sall moom la ñuy woo ci jàmm moom la ñuy woo ci dal ndax loolu ci moom lañ koy xaar donc bari na nag lu fi nekk. Mm-hmm. ñëpp di ko wax te je pense que ne tey jii naxante waruñu parce que ñun dootuñu ay xale ay magum jëmm lañ. dëgg la donc fii ku fiy nax rek sa bopp ngay nax nañ ko teg ci yoon. ñii nga xamante ne nii ñoo war a doxal li ñuy doxal ñu doxal ko comme ça ñëpp mën ci gagné parce que à part Ousmane Sonko ak ak Macky Sall mais y a des autres sénégalais ñoo xamante nii seen yoon nekkul ci politique tey ji da ngay xool ñii di yàqu la ci matériel politique donc ñooñu seen yoon nekkul ci politique te dañ koy dañ leen koy yàqal donc dara jaru ko. Mm-hmm. fii ñun ñëpp dañ koy dañuy dem bàyyi fi lépp te lépp daf fii des. am na solo justice. Mm. moom lañ fi teg justice dafa war a tëddee njaaxaanaay. maanaam mu jariñ ma jariñ la jariñ lépp ku ne ci kaw dëkk parce que ñun ñëpp institution bu nekk mën nga fi jógee mais justice sera là te justice defe naa ci mhm. institution yi gën a fonde dëkk bi mhm. ci la bokk donc muy Macky Sall que ça soit keneen ku war a ñëw aussi di nga fi toog jóge fii comme ni fi Senghor jógee Abdou Diouf jóge fii Abdoulaye Wade jóge fii Macky Sall tamit dafay jóge mais na rafet ñu teg ko ci dëgg kenn bañ a gaañu bañ a indi benn violence ci dëkk bi muy suñu njariñ ñun ñëpp donc man gis-gis boobu laa ci am.